benn tool bu ne benn ku fa am tool ñett million la ñu la dig ni dinañ leen ko jox ñu ni nag léegi tool yooyu nañ leen ko defal délibération ci conseil rural bi ba kenn ku ne téye la nga yor lépp nag natt nañu ko ba euh, euh, commission bi jàpp na ko ba lépp téye nañu ko nga xam ni kenn ku ne sa këyit di ko yor ba bu ñu euh, passé yi ñu daal di tàmbalee def seen programme pour nu ñu leen di fay lu demee noonu mooy foofu lañ toll ci waa Ngasama kër yi moom fay nañ leen ko ba fem ne euh, ñoom ñëpp seen kër fay nañ leen ko ba ñu ngi ci liggéey ñu ngi ca liggéey bi loolu daal mooy li nga xam ne si moom laa leen doon wax ci programme Ngasama moom municipal di conseil municipal di président commission coopération et développement bu commune Ngandiouf euh, comme ni nga ko waxee rek si say laaj euh, ñu ngi ñëwoon tey ci compte administratif 2020-2022 BBSU projet euh, euh, projet budget 2024 aussi débat ak ak débat d'orientation ak aussi euh, ay vote pour délibération ay terrain ak ay attribution yoo xam ne na am. ci le conseil bi nag wax dëgg dans l'unanimité liñ def ci projet compte administratif 2022 2022 conseil à l'unanimité ñi fi teewoon di di 38 conseil ñëpp voté nañ ko à l'unanimité euh, gis ni wax dëgg yàlla liggéey bi nga xamante ni santoon nañ ko nga Nganjuk ci bopp ba di bàyyi nguda si di monsieur le maire dëgg yàlla mairie bi defe nañ ko nañ ñu ko bëggee donte nag amoon na ay quelques observations yoo xam ni ay joyante la ñu doon sàkku ci biir conseil dëgg yàlla ñu nekk conseil yoo xam ne ñu positif lañ euh, ak fu ci waaye mën a bokk ñu positif ñoo ci nekk ñoo xam xam-xam yi teel na leen lu doxal commune Ngandiouf yi teel na leen kon day yàlla ñi nga xamante ne ñi ngi ci biti dañ teewal leen fii ñu xam ni ñi ñu fi yebal ko wax dëgg yàlla ñi ngi liggéey ñi ngi def seen liggéey ñu ni mu waree ñi ngi ñi ngi ñi ngi bu euh, puus ñi ñu jiite jotee dina leen puus su su su su gëtal nañ jotee dina leen su leen laaj leen jotee tamit leen laaj lu ñu war a jooy ñu ngi koy jooy kon wax dëgg yàlla ñu ngi def seen liggéey ci côté boobu Euh, ñi ngi rafetlu tamit seen liggéey bu baax a baax bi ñu demee tamit ci projet wu 2024 bi nga xam ni moom lañ jëm at mi ñu jëm euh, misère yi liñ yiñ kii ñu tënk nañ ko ci kayit li nga xam te ni moom la maire bi ni nisara def ah ci looloo wax dëgg yàlla euh, def nañ ci ay appréciation def na am tamit ay observation yoo xamante ni ñi ngi ñaax maire bi ñu ñu yokk ko yi nga xamante ni tey gars yi wax dëgg yàlla nañ ko jël en compte li nga xamante ni gars yi conseil yëpp def nañ ko muy am seen observation yoo xam ni yu ñu war a yokk la ñu war a ñu war a jubbanti la yooyu tamit na ko maire lu monsieur le maire tamit jël en compte fexe koo jëmmal ndax lu am solo la ndax conseil rek lay jariñ mooy euh, orienté euh, jàppale maire bi fi nekk liggéey ak moom ba nga xamante ni tey jafe-jafe ak sa bi dinañ ko mën a saafara leneen li ci def si nga xam ne ci lañuy euh, àddu te foofu laay daaneele mooy Euh, li jëm ci wàllum terrain yi mm. comme euh, fii mu xaw a nekk nag commune bu xaw a complexe mm. yenn saa yi waaye wax dëgg yàlla yàllaa ngi ñuy dimbali ba jafe-jafey suuf wax dëgg yàlla yàlla ngi ñu ciy dimbali kon population bi nañ gën a euh, yaatalaat dënn yi jàppalante ci lépp ba xam daal gars yi ku bëgg terrain di nga ko mën a am ndax dëkkuwaay mooy mooy mooy mooy pri priorité ci mbay waaye it waxuñu it nga ñëw fekk toolub jàmbur nga ni damaa bëgg kër ñu jox la ko nga dem miire ko di ko bay bu doon looloo ñu bàyyi ko ko ko yoroon loolu nag tamit nañ ci bàyyi xel bu baax baax kon daal euh, pour ramasser daal loolu moo doon kàddu yi. tamit ay uh-huh. euh, jàmbat wala ay bébé uh-huh. euh, uh-huh. ko wala loolu tamit manque doon fàtte doon nañ ko wax wax dëgg yàlla ambulance nekk na jafe-jafe boo xam ni. moom it bu bu lu fréquent la ci Nganjouf wax dëgg boobu ba léegi mën ñu ko am donte nag euh, euh, ni ñu ko waxee rek mooy am na yoon yu ñu war a jaar ñoo ngi cee commencé jaar waaye nu mën a gën a gaawee moo ñu gënal ndax jafe la boo xam ni itte nañ ko lool ambulance ci commune Nganjouf wax dëgg yàlla commune bu toll ni Nganjouf war naa dépassé problème ambulance mm-hmm. loolu nag kon autorités yi ñuy dégg di dégg suñu kàddu nañu ci jàppale ñu am ambulance ci nu mu gën a gaawee hôpital bi tamit li nga wax xat na tuuti na ci par rapport ak li mu ko waafee waaye lu ci mën di xew ah amoon nañ benn programme boo xam tamit mi ngi doon ñu war a appuyer pour PNDL la su ma juumul euh, ci ci ñu construire beneen poste kon amaana moom it nañ ñi ngi ñaan tamit mu mu doxal jéego yi ba ëllëg ñu ñu gaaw ko defar jëmmal ko ndax itteewoo nañ ko bu ñu mënoon am centre de santé sax moo ñu gënal ndax Ngandiouf commune village 107 cent 306 kilomètres carrés Euh, cent sept village dix-huit amu wax dëgg yàlla loolu dafa rëy kon centre sax lañ wax dëgg yàlla bu ñu ko mën a am moo ñu gëna a wala boog bu ñu ko amul ñu am post bu digne de son nom wax dëgg yàlla itti woon nañ ko kon problème mu sécurité tamit voilà wax nañ ko fi comme euh, euh, récemment bari nañ ay wàllum vol de bétail boo xam ne fréquent na fi lool. wax dëgg yàlla doo toog une semaine wala deux semaines te déggoo vol de kon loolu waa waa gendarmerie nag amoon nañ fi niseur mu bëgg fee taxawal poste wala brigade ci Ngandiouf lool nak ñi ngi leen ñaax di leen di leen di leen gàttandu ak ak ak ak yakamti Ngandiouf soxla na lool brigade boobu ñi wala wala poste de de brigade boobu soxla nañ ko lool ci commune Ngandiouf nu mu gaaw rek nañ wax deug yalla kon dal euh, voilà voilà légui tamit euh, ci côté désenclavement Ngandiouf nek na lo xamni ni ñu ko waxee euh, commune bu toll ni moom 107 villages 18 hameaux zéro route goudronnée loolu c'est à déplorer piste yi fi nekk su presque sompa pas parce que piste yu dem ba yàqu la kon soxla nañ ay route même bu ñu amul ay route bu timee sax ñu am ay piste yoo xam ni dina mën a gi gën a comme suñu yoon ak Kébémer wala suñu yoon ak Pekes wala suñu yoon ak euh, Toubé faa jaare par Daaru Sam wala tamit marché bi tamit hebdomadaire bi wax dëgg yàlla war nañu taxawaat comme yàlla def na ren nawet bi xaw naa amuk coppite wax dëgg yàlla ñu ñëw ci marché bi di fi kii di yaxantu ba am te ni tey nit ñi dinañ ci mën a gis seen bopp commune bi tamit dina ci gis boppam wax dëgg yàlla commune bi tamit euh, feneen fi may waxe mooy euh, pour mu pour mu mën a am recettes yi war ay koom-koom faaw lu mel ni ay marché am bañ sukkandiku rek ci état mu am ay marché am ay euh, taxi ñu war a laaj nit ñëpp wax dëgg yàlla donte euh, euh, yombul fii waaye ñu war a xam ne ku yor place te di ca amus dara war ngay cof tuuti di jox def ci mairie ba ak lu mu ndaw ndaw loolu dinañ ko xam ni amaana amagul waaye bisit dina ñëw amaana dinañ ci egg ci tamit ci côté construction euh, foofu laa ñëw mooy ñu war a jéem a am ay gisin ci kanam gisin yi mooy ñu war a xam ñun commune lañu yor war nañu bala ñuy tabax ñu dem ca mairie ba wut ay autorisation de construire bu ñu def it lotissement tam ñu def lotissement bu régulier boo xam ni ay ay ay spécialistes ñoo koy def ay géomètres yu qualifié ñu def ay lotissement yu régulier euh, def maanaam mu am nekk ci norme yoo xamante ni suñu waree tabax tamit ñu wut ay autorisation de construire su ko defee ëllëg maanaam commune bi dina ci gis boppam yow mi usager bi tamit di nga ci gis sa bopp voilà. dernier mot bi mooy euh, di sant ñëpp di gërëm ñëpp rek di ñaan suñu boroom.

le euh, débat d'orientation pour le projet de budget 2024 donc bu compte d'exécution effectivement si on 2022, 2022 réalisation yi euh, par rapport à l'attenté. Euh, effectivement nous constaté nañ ko ñun ñëpp waaye kenn ku 2022 bi une année spéciale pour xam les collectivité bi na fonds de dotation au mois de novembre euh, taux d'exécution bi xawoon na trop mais heureusement que commune bi xawna anticiper ci yenn yi ba taxna à la fin gis nañu une nette amélioration par rapport ak euh, fi nga xamni fofu lañu toll won en novembre. ba taxna bu dé ci investissement yi dem nañu ba ay peut-être ay 49 bu dé peut-être xëy sama euh, xel kii ma. Mhm. fonctionnement bi aussi dem na ci ay jusqu'à 37 peut-être xam naa revoir sama kii mais par rapport ak novembre dal bi ñu ñëwee ak li ñu présenté une nette amélioration. Mhm. voilà.

Euh, bari na booy xool tamit matériel kii bi euh, personnel euh, enseignant bi manki na trop ay classes multigrade ñofi nek waye bëgg nañ également commune bi gëna duggal loxom ci gafakam ngir primer les élèves yi nga xamni ne sont des élèves méritants waye surtout timit enseignants yi pour mën leen retenir sur le territoire sur le sur le terroir ñu fexé aussi ba créer des conditions yoo xamni di dinañ mën a mu ñëwee ci biir commune ngañ Diouf ñu mën fi tok liggéey correctement et am ay résultats yi nga xamni ne moom la xaar sakku ngat ci walu infrastructure wax nga ko lu jëm ci ay construction mhm. salle de classe effectivement waaye itam lu mel ay mur de collectif effectivement ba ci sax li terrain football yi ne ci très bien très bien euh, parce que problème l'air problème la réellement donc classe ci bari xeyna muré ni muré guñ ko amagul clôture mhm. te xam nga sécurité bi légui fi ñu école yi war nañ leen fermer mais fermer bi aussi dafa am nu mu war a demee dafa am ay ay ay terme am ay euh, dimension yoo xam ne war na ko am ndax boo ñëw ci benn école bu ci nekk euh, dafa war a am benn terrain réglementaire ci biir école bi parce que euh, dafa am benn salle de classe bu fa nekk mën nañ ko tuddee salle de classe ndax ndax le terrain sport salle de classe la parce que professeur maître bi fay jàngale éducation physique waaye même maître bi sax fay def ay examen professionnel te donc terrain boobu dafa war a am dimension yoo xam ni moom la ñu moom la ñu moom la ñu moom la ñu ko moom war a donc le conseil municipal de ci wara a xel clôturer établissement yoyu mu le maximum possible pour que terrain bi mëna dans l'enceinte de l'école waaye motiver également les enseignants pourquoi mmh. pas fexé ba dans chaque école

ko indi du xaar rek état bi effectivement xam nga Ngagne Diouf nag dafa xaw a particulier par rapport ak ak yeneen kii ah, particulier par rapport yeneen commune Ngagne Diouf dafa yaatu ba pare amul marché amul yoon boo xam ni presque nit ñi den sawar ñëw def fi ay yëngatu fi ay koom ak yooyu mm-hmm. donc yooyu moo moo ñu gàllankoor parce que daal booy xool taxe bi rek moo fi nekk mooy li ñuy wax impôt li ñu wax impôt donc te loolu année yu passé xam nga amoon jafé jafé ak hivernage yi nga xam ne xaw trop ba mënuñu ko woon recouvrer donc peut-être xëy na ren yi alhamdulilah am na lu tane xëy na dinañ ko mën a ñëwaat waaye war nañu fexe ba autorité autorité état étatique yi dimbal li ñu tamit ba fexe ba ubbil ñu ngañ pour que ñu mën fi créer bi yenn marché yoo xam dina mën a ay recette beneen bi ci des aussi mooy am un partenaire boo xam ne muy ñëw muy GFOS mhm. te ñu ngi compté bu baax ci moom mhm. pour que mu mën a éducation jàppale santé waaye jàppale aussi les euh, jeunes pour seen seen demande d'emploi. emploi yi mhm. aussi autorité locale yi war nañ a jéem sax commune bi à travers le pays ou bien à l' mhm. pour mën chercher ay partenaires yoo xam aussi dinañ mën a commune bi ci wàllu recette ak ak euh, investissement man la Elage Fadbo Diouf infirmier chef de poste de Ngagne Diouf tey ñu doon ci réunion conseil municipal commune de Ngagne Diouf mhm. ñu nekk ci bureau orientation ak coordinatif mais ci ça bi dégg la nga yëkëti ay doléances ci melni poste santé nga l'état ak état bi mu nekk ma ngi wa wa wa effectivement parce que do gisé poste bi do xolé ci débat ci débat de la d'orientation budgétaire bi bien vrai que do xolé rubrique yi buñu d'abord ci ci le, le fonds de dotation fonds de fonds de dotation de 2022 bi euh, c'était 6 millions. Mm-hmm. Sur les 6 millions, pratiquement les 3 500 ont été réalisés loolu noonu c'est une avancée 2023 aussi les 6 millions qu'on avait prévus euh, dem na 5 millions loolu tamit dara la moo médicaments au comme qu'on a prévu 6 millions duñ avons exécuter 6 millions parce que en 2022 bi comparaison avec 2024 encore on a prévu encore 6 millions pour les médicaments pour les fonds de

comme euh, comme Gembe hein, Daaru Saam Mbaqis yàgg na hein, Gardiyel Màkkali yooyu yëpp ay postes yu la mi ñooñu ñëpp dooy xool Ngagne Diouf moo mais doo xool fi mu actuellement on peut dire que Ngagne bien vrai que ne y a la population y a la fréquentation mais poste bi dafa dafa non, c'est côté c'est côté décoration parce que dafa yàgg bâtiment yi dafa ancien dafa ancien doo xoolee poste poste que c'est gis sax fu mu toll il y a ay zinc wala ay tôle parce que bu doon demee léegi dañ ko rafetlu ne waat daf ko dal nga xam ne dafay dafay dafay mi nga jamono mais poste bi war nañ koo xoolaat au moins jëm koo tojaat hmm, wala rafetlu ne waat ko bu au moins bu mu doon mu méngoo jamono côté yooyu daal moom laay déplorer. ambulance aussi c'est un problème parce que li may wax léegi rek la fait que tamit ñoo concevoir poste bi bees yëpp su nekk am nga am nga ambulance poste bi bees yëpp te communal mënu ko am loolu tamit c'est un problème c'est un problème am ambulance xamante ni tey ambulance comme par exemple Ford yooyu tamit baxna mais dox amé amee mënut a dugg bi. adapté sur le terrain ngeen bëgg dem dans les cases dans les villages les plus reculés def ces stages avancés mobiles hein, mais yooyu noonu bu dee ambulance bo xamante ki la ñamuloo ñamul suuf kon kon kon dalay sonal. rang aussi day gaaw tas ambulance motax ambulance fu mu toni nii fu mu garé léegi ça fait maintenant 4 mois la garé parce que dafa dem ba sonn ñu mujjé ko garé yéen a problème pour ngeen référer waaw donc problème pour actuellement si tu veux référer tu es obligé nga rabat si si clando yi clando ngay woo mu ñëw évacuer la wala soit y a les voisins ngay wo les voisins fi nga xam na ambulance comme Ngembe mu ngi ko woo mu ñëw évacuer la wala daru Sam djégé na ma mu ñëw mu ñëw évacuer ma mais sinon fa mu nga woté ambulance am dem. ba di nga sera obligé nga jéem a woo benn clando wala je sais pas bu lo tamit c'est un problème en enfin tamit ñu xol tamit personnel aussi parce que tamit do xolé le poste wax naa ko léegi nii poste yi dañoo xoolee léegi dañoo dañoo bëri dépense. Mm-hmm. yow do bëggee jël sa personnel commande médicament parfois tuuti investissement yaa koy def des foo métti motax le personnel au moins duñu mënon bu doon poste dafa am tey par exemple sept personnel yo xamné en charge mairie bi du mënon jël sax 2 wala 3 dañ fay sax dañu xaw a tout tuuti nga xam au moins chaque fin de mois dañu mënon def suñu dépense mëna denc touti pour en cas de problème ñu mënse euh, réaliser. c'est ça. Je vais poser bi le maire quoi le imprimante ou bureau imprimante pour zone bi la sept écoles tirage mhm. euh, pour évaluation yi souvent soxla imprimante donc directeurs sont obligés obligé payer par leur moyen dem ay des pour nous pour pour ñu mën a def évaluation yi quoi donc ay problème la moo tax bu ñu mënoon am imprimante dina baax trop quoi ci école yi quoi waaw. Euh, tout à fait bon par exemple boo jëlee euh, suñu école par exemple Ndiompi école bu yàgg la. Mm. école bi presque depuis indépendance bi mi ngi foofu taxaw. Mm. mais ba tey amul bureau pour directeur bi quoi. Mm. donc bu ñu aussi am bureau dina bax trop ci euh, euh, liggéey de coordination bu ñuy def quoi au niveau de la zone quoi waaw ci walu mur aussi école bu melni ni xay amagul mur de clôture wa Bilden tabaxal nañ len ñaari salle mais batay amaguñu mur quoi donc suñu mënee am aussi euh, mur de clôture pour l'école de xay Ngunjaan dina bax trop quoi parce que day day gëna tax xalé yi nek en sécurité waaw pour mën a jàng correctement wa ren macha allah euh, monsieur le maire tel na joxe dotation bi quoi wa bien que beuriwul nonou mais quand même tel na ki su ko defee xale yi dinañ tel xam lan mo len manqué ñu mëna compléter sen fourniture quoi. en kay loolu kay buma ma par exemple suñu cas anjompi normalement 6 jangal kat ñoo foron nek mais ñun ñett ñoo fa nekk donc kenn ku ne day yor ñaari car ñaari classe ñu def ko ay multigrade quoi boo demee aussi si yeneen écoles yi loolu nga fay fekk par exemple à Xay trois cours ñoo fa nekk mais benn jàngalekat moo fa nekk nga dem Njeng aussi c'est pareil nga dem euh, Sam Dieng c'est pareil bégal ay gati ngaraaf yooyu yëpp ay multigrade la ñuy fonctionner donc euh, c'est vrai que c'est un problème national mais suñ mënee am plus de personnel dina tax jang bi mën avancer correctement mais bien sûr day feeñ parce que gérer ñaari classe Ben jangale kat mu gérer ñaari classe wala ñetti classe dafa metti donc parfois day obligé sacrifier ben ben ben classe bi au au profit d'une notre autre classe quoi donc moo multigrade mom fu mu rek day impacter négativement sur euh, les résultats des enfants quoi. kàddu gi mujj bon doléance yi moom encore une fois bureau bi yàgg naa kaa jooytu bureau bi ak euh, imprimante bi surtout pour évaluation xale yi. waaw soxal nañu bu baax a baax.